Abonnez-vous sur pour de nouveaux contenus exclusifs de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater. alxuraan bi xaaroo ko dafa teel a yëg trop moom. dafa teel a yëg loolu laa doon hésité kay. dans ces circonstances là euh, sama ubbi c'est pour juste euh, euh, que en principe li mooy que visiteur qui est venu rendre ñu déglu ko d'abord avant que peut ñu mën a sànni kaddu mais comme ñun la ñu fekk ci suñu këram j'en profite pour souhaiter la bienvenue chez nous à toute la délégation de monsieur le maire euh, di am beaucoup beaucoup de plaisir et de satisfaction à recevoir ici pour euh, de raisons et euh, je crois que euh, li ma wax sànq ci suuf rek xamante nañu waxtaan nañu commencé woon nañu waxtaan dajawaat nañu dans des conditions yu souhaité wul woon waxtaan weccante xalaat bëri aussi ñoo xam ne seeni i proche ñu ñu xamante ñoom di jëflanteek ñoom jàpp nii peut-être y un certain nombre de de faisceaux de convergence entre nous ba tax euh, bu yàlla defee nattu bi tegu woon seen kaw yàlla teggi ko dans le cadre de vos visites de courtoisie ngeen euh, taamu jaar fii sànq sax maa ngi koy wax ne euh, c'était pas à vous de vous déplacer ñun ñoo waroon ñëw parce que man néew ma dans les et les formalismes mais ni nga ko waxee rek sànq xam naa di nga ko réitéré vous y teniez pour des raisons qui vous sont propres. Donc on vous la bienvenue ici et vous dire qu'à mon nom, au nom de mon parti, mais également de tout la coalition qui tourne autour de ce parti-là, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons ici avec votre délégation. je voulais rendre la parole pour euh, peut-être nga waxtaan ak euh, ñu fi teew incha allah merci beaucoup ah asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam jiital ci bala maa nuyu le président Ousmane Sonko ak ni ñu dajal ñu sant yàlla bu baax ak saa yu tolloo fii dama naan toujours nañu sant yàlla sant yàlla ngir li mu ñu defal parce que ku dund nattu yàlla moo la ko teg ku ci génn moo la ci génn sant yàlla ci li mu ñu may ñu dundoon at bi mu jeex mu may ñu ñu door at bi di ko ñaan rekk at mi dàq bi ñu weesu mu doon atum wér atum sutura atum jànm atum nataange atum wérle atum matal suñu yéeneeg suñu doxal suñu weesoo ci loolu ñu soog a nag nuyu président Ousmane Sonko wax na dëgg moom ak ñi mu toogal ñëw fii bànneex la mais ñëw fii wareef la ni ngeen ñu teeroo ñu rafet la ko bu baax parce que nii lañ ko bëggee muy teertu bu jekk bu tooge na mu war tooge mbégte bi nag ak sant yàlla bi mooy Ousmane ko wax na ko léegi dafa amoon lu ñu sumboon ba ñu jëkkee daje yàlla muy def li ko soob def ko na mu ko neex mais moom mu mottali ko comme ni may wax rek cinq étoiles pour insoumis ba ma nekkoon ñëw na fa ñetti yoon xam su ñëwee sax da doon am kersaw wax politique su ñuy waxtaan balaa caa politique di rax nit ak nit la mag ak rakk ay nawle ki jullit dañuy jëkk dugal balaa la ca des di ca rax ma doon rafetlu loolu bu baax a baax vraiment moo tax ñëw fii tey doon mbég ñu ñëw ak délégation ñu bind woon sax bari nañu mais xam naa ni gaa ñi moom ba léegi dañu egseegul mais ñëpp dañu amoon mbégte ñëw fekkee waxtaan bi ngir li nga xam ni moo doon nisaru bi ñu dooroon te amoon ndog ba moo tax ñu gërëm ñëpp ñu nga fi toogal ñu bokk sa parti ak ñu bokk sa coalition comme ni nga ko waxee laafiya nag moom trait d'union la eh, laafiya maag moom moom li ñu boole dafa bari donc su ñëwee di la jàppale dafa mel dafa dafa ma indaale géew du la la ñam donc euh, may wax rek ni suñu xarit ak mbokk Pastef bi nga xam ne ak coalition bi yëpp di président Ousmane sonk jiitu bëgg nañ torop ñëw fii tey bu jëkk bi mooy gërëm ko gërëm ko bu baax nag gërëm ko gërëm bu dëggu parce que dañu gisee yàggul yàlla def li mu def la ma duggoon ak lañ ma dugaloon ak la tax ma duggoon ca la mu ca xamoon bariwul mais pour des question de principe et mu def ci xeex bu metti xeex bu rëy je crois que à l'Assemblée à un certain moment sax gars yi dañ ni nañ ko def mu doon sama avocat après l'élection de 2017 je crois que xale yi mu wër xam nañ ko moom ak benn nit lañ doon wax su dul kii jëlal kii donc tellement son engagement était entier était fort donc kooku soo ñëwee ni ko jërëjëf du loo xam ni pour rafetal la walla di def loo xam ni da ngay jéem a wax lu neex mais jëf ngay màggal di ko rafetal donc gërëm ko ci loolu gërëm ko aussi ci taxawin bi ak taxawaay bi mais boobu nag mu bokk ko yéen ñëpp yéen waa PASTEF mu bokk ko seeni coalition comme ni mu ko waxee li mu wax pour moom la mu laa mën wax ci ku nekk ci yéen parce que suñu mbir mi demee woon na noo xam ne je crois ñu ci bari xamuñu woon wund gi parce que bëgguñu woon ñun wax yenn yi ba tax na képp ku la ci jàppale rek képp ku ci jàpp wax ci ñaq ci sonn ci amel nga ko jërëjëf parce que dafa def te yàlla tax dafa def parce que am na fu mu teg li mu defee ak ni mu ko def donc yéen waa Pastef yëpp ñu gërëm leen sant leen félicité leen it parce que da ngeen di soog a jóg mais seen jógin rafet na entre 2017 et 2019 vous avez accompli de belles choses ku ñaanul di félicitations donc ñu di leen féliciter ci travail politique boobu ngeen def ak ni ngeen di doxale ñetteel bi mooy waxtaane ëllëg mais xam nga ëllëg ñun ñi yàlla dañ yàlla ko moom mais li war nit ki mooy di sabab réew mu ñu bokk nag di ko waxtaaneeg di ci jëf di déeyoo di defandoo di waxandoo lu ci am solo looloot waxtaane woon nañ ko lu ñuy continuer la parce que Sénégal moo ñu moom ñun moomuñu Sénégal Sénégal la moom Sénégal boobuñ moom ñu nag daf ñuy jaral lu ne comme que kenn rekk dong munoo def lépp defandoo ko waxandoo ko jëfandoo ko moo fi am solo ci looloot waxtaane nañu ba tax na réew mi ñu bokk li mu laaj ku nekk dana ca def la mu war def ci kàttanu yàlla en loolu moo doon solo wax du dëgg gërëm sant ñaanal ko yàlla na foofu la ñuy daanele xale la buy soog a door suscité beaucoup d'espoir yal na yàlla mottali ko yiir ko aar ko dëgëral ko parce que loolu mooy li am solo waxoon naa leen de mi ngi nii Bart rendre nañ la hommage sànq bala ngaa ñëw sa taxawaay <laughs> donc euh, ñu ñaanal leen daal li ngeen sumba yàlla na ko yàlla mottali yàlla ko yàlla rafetal di jeexale rekk ci ni lii ñu sumba ñu ngi ñaan yàlla mottali ko te ñun ñëpp ñu ànd bokk def kenn benn wuutu benn kenn bañ a wuute kenn bañ a rëccu voilà li nga xam ne président Sonko moom laa doon bëgg wax ko suñuy frère et ami du Pastef wax ko waa coalition bi la jàppale yépp di wax ni réew mi ñoo ko bokk ñëpp ay ànd liggéey donc maa ngi gërëm ñépp di leen sant di rafetlu teewaay bi ak teeru bi rafet na dëgg yàlla teeru bi rafet na kàddu yi rafet na en tout cas li ngeen def gis nañ ko et on en tiendra compte merci beaucoup